xew-xew club entrepreneuriat bu Sembou Ngagne Diouf ànd kooku école élémentaire lëkkaloo ko mboolem ndaw bu yeewoo ci ndob Gadiaga ñooy amal waxtaan bu mag ci entrepreneuriat gaaw lay doon yemoo ko juróom-ñetti fan ci weerum juin ca ndob Gadiaga ñu fas ni waxtaanee entrepreneuriat jeune pour l' émergence de ndob Gadiaga mbokk yi bokk kenn wuute